أستغفر الله علم الذي لا إله إلا هو حي قيوم أستغفر الله علم الذي لا إله إلا هو حي قيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي قيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقدر ما سبق نصر بالحق والهادي صراط المستقيم وعلى اي حق قدره ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الامام نيغي نان يالا لي نيو امبو يال درجه يونتبي صلى الله عليه وسلم xanaa ñun ñépp ñu bokk wax alhamdulillahi rabbil alamin ñaanaat yàlla mi ñu mayoon ñu teew fi daawaati jéeg teew fi daaw teew fi ren yàlla nañu yàlla may ñu dolli ko fee teewati déwén yu baree bari ak rafetu fekkin ñu yàgg fee ñëw yàgg leen fee fekk ànd ak kilifa gi muy Sidi Boubacar Sy mu Cheikh Alxaaji Mouhamadou Mansour mu Cheikh Sidi Alxaaji Malick yàgg jiitu mu yàgg jiitu ñu yàgg topp ci gannaawam ci darajo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi leen di ziyaar yéen ñëpp particulièrement ni ñu ngi nuyu jigéen ñi di leen ziyaara anta karimun fal karimu man iltaja ila baabi yaman ala kulli niqmati cheikh seydi alhaaji maalik ne fa anta halimun yaa sabuuru liman jafaa fa ana abdul jitu baadi dillati di leen ndokkeel di leen siyaara di leen ñaanal yàlla Cherif ñu ngi laa nuyu di la jox sa cër nga am te mu jóge ci sa maam rasulullah xas Mansour di leen ndokkeel di leen siyaara maa ngi nuyu mbokk yi bàyyi ko Marseille daayira Fatimatu bint Rasul alaaji boole alaaji ma xeet ak ñu ñu àndal te leen masawu ci coono di nuyu waa Italie waa Singoño daayira Silatu Rahim di leen ñaanal yàlla delloo jàmm ànd ak yiw maa ngi nuyu mboolem ku fi teew ku bàyyikoo ci daayira ak ku bàyyikoowul ci daayira maa ngi nuyu délégation yëpp waaye bu fekkee xalaat yi ak yéene yi wuute na ngir matadik doom aadama ku mat ki Mawlana tabaraka wa taala yal na nu mottali ca matam ga ba kenn ku ne loo fi indiwaale lu mën a doon te du yàlla yal na yàlla rocc loola roof ca boppam ba lépp yàlla dara joo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, nu ngeeti yéen a ngeeti yal na yàgg yal na nu bokk du ñëpp sant yàlla ci la jaam day nangoo sant boromam rawatina su amee borom bu baax rabbun karim te fekke daaw fekke ren jar na sant yàlla doon jullit jar na sant yàlla bokk ci xeetu yonente bi jar na sant yàlla bokk ci bànni aadam jar na sant yàlla ñetti cant yooyu ñetti cant yooyu ku ko dëndiixu na patt ak moom ba dajeek sa borom daa am kers ma ne cant yooyu war sant ngir doon gi nga doon doom aadama yàlla joxar bi doomu aadama am lu mu ca waxte boole la ca te yëgoo ko mu ne wala xadda karam naa ba aadama yàlla boole la ca xeet woowu du demande boo def du intervention buñ la defal rocc la ca مولاي تي خيت يونت بي صلى الله عليه وسلم واخني كنتم خير امتي تيغو مو بولا لا تي دوخ توتي لا تي خيت يونت بي استغفر الله دوخ توتي تي بولا تي جوليت نلا خط من الله على المؤمنين اسمع سفيهم رسول من نيتي بريمير يوي ku ca bokk te kattan ak man-man yóbbuwu la ca yàlla la baaxe boole la ca ñetti teraanga yooyu ku ko wan naa su te santoo man naa jur dajeeg sa boroom am kers am déggo li ma wax dama ne ñetti teraanga yooyu yàlla teral nit def la ngay doomu aadama boole la ci xeetu yonent bi def la ngay jullit ma ne ñetti première yooyu ku ko dëndiixu na pëtt ak moom ba dugg a bàmmeel dajeeg sa borom daa am kers bokk na ci li tax yàlla nangu liimaan ci jàmm dinay am daa gis ku dund ci liimaan di ci dund di ci dund ba dee ñu sanga la sanga la jullee la ñaanal la te fekk yéefar lañ ko defal waliyaasu billah hmm? yaa ngi may dégg alaji boole dama gis ku dund di dem jàkka ja dem makka jàng alquran siyaara yonente bi toog ba toll ci sukuraat yàlla nangu liimaam nga biyaale kéefër biyaale kéefër ñu sang la sang mbaa dootoo ñëw ñu sanga la sanga suuli fekk yéefar la ñu suul dooma laaj lu koy waral ñetti yëf ñett yi may bëgg wax dina tax nit toll ci sukuraat yàlla nangu liimaan nga deale kéefar mu laay maa ngi laa nuyu si di la siyaar bu baax di la toftal ci sa mag ju baax jooju ma dem lu waroon wax waaw góor a waay ñett yi tax yàlla def nit loolu moom laa lee bëgg a wax bokk na ca fopp sa làmmiñ di nangoo teg ci deru nitu yàlla di ŋàññi nitu yàlla ku yàlla baaxal ku ne nga ayibal boroom ku yàlla suturaal ku mu doon nga jéem xotti suturaam loolu dina waral soo tolloo sukuraat yàlla jéppi la nangu liimaan nga daale kéefar yàlla nu ci yàlla musal maa ngi bëgg a wax bi ci des bi ci tegu moo di tardee julli tàkkusaan te ngànt taxul di tardee julli tàkkusaan te ngànt taxul dina tax nga toll ci sukuraat yàlla nangu liimaan nga daale kéefar te ngànt taxul xafisu ala والصلاة الوسطى وقوم الله خانتنا دي تربة جلد تاكوسان تسا بكن تخ دان تتخل دينا ورال بوطن لكي شكرات يالا ننقل لي مانجا ديالي كفر نعت الله وخ ما وخ بجرس ما ينكا سنت خيول الإسلام ولو وطول الإسلام nga xamne du ku mu neex bok ci la tahdi man a papta wala kin la hadi man a shaq يالله نا مصطفى صلى الله عليه وسلم يالله جوخ لب يالله بي لب واي الاسلام تاغو ماكا تي سالوخو بور كولا نيه مو دوجي ديدي ماي سيت مان يالله كوما نيه ما دوجول كتي لا تادي منا بابتا ولكن لا يهدي من يشاء كي جوخ ما غنا لوموي ديف لوموي ديف كي جوخ ما غناو توغل توتي توغل توتي alaaji bu saaxu sama sëriñ ne kuy saru ku ne xañ nga ma ñetti client ki nga tax ba muy sàq mi dootuma déglu ki yu xamtalu te ak soogoo ci moom dootuma déglu ki xamagul dina jeexam déet dootul déglu kenn tuuti rek bu jógee ci way yi rek ñu profité ci ma dem yéex a julli tàkkusaan ak ñàkk a sant xéewalub lislaam ma ne yàlla ne na yonante bi lislaam du ku la neex mu dugg ci maay seet ku ma neex dugal ci borom yow li nga man mooy ku dugg na la siiwër wa innaka la tahdi ila siraati almustaqimi siraati llahi lazi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard ala ila laay tasiru lumóor yow ku dugg na la roy ku dugal a la waaye dugga gi du yow man la bu doon nëbey dugal ku ko neex kon aba taalib aba taalib mooy abdu manaaf moo jur ali jàmbaar ji moo bàyyi nëbee bokk ndey ak bay moo yar Moustapha bi nëbee amee huit ans fekk na baayam dee maamam dee ndeyam dee rakku baayam lañ ko jox wala magu baayam muy abdu manaaf te siiw ci aboo taalib taalib ji dafa taaloo taalib ñuy ko papi taalib arab dañoo habitude koo tawloo ku ne ñuy la wooyee papu diw waaye turam piir mooy Abdou Manaf maamam lañ ko tudde kookoo jur ku ñuy wax taalib moom la tawloo ñetti at la am jinne ka këf xamul fu mujj ba mu feree mu teg ca jaxfar jàmbaar ji moo daanu ca xare bu ñoo mu aata wa in amilta xaw xawmin fakkun fakkun ka jaafarin aw da wala tastabiqi xat xuti at ya daaw yow ma mu aata wala mu yëdde li kami sa waqi lakin nahtadannaahu ban naa fa góor gu ñu Abdou Manaf moo tawloo xale boobu jàmbaar la mooy président gàddaay yóbbu Médinatul mu màkkatal mu karama yóbbu gaañe Médinatul mu nawara deuxième parce que Médina troisième gàddaay la première gàddaay mooy ama xamsin ñu def 17 mois dellu si waat Moustapha jëñ a xaat leen ñu la ñu toog na bi gàddaaye Makka ñu Médinatul mu nawara kër bu mu tojee Xaybar la ñu ñibbi si moo ata ci topp nag moo ali na bokk dee bàyyi di jàmbaar ñeme lool ne Moustapha du du ma siiwal gannaaw Aliou may magam te maa gën a ñeme ne bi nomee ko ci benn xeex bu ñu am mu aata moog ndey sa Abdallah ne Rawaha ak Seydina Ndima Harisa ñetti séeréer la ne bi ci benn xeex ñu daanu doon benn benn benn yoon te dafa amoon habitude bu ma saa am ngant ci xeex te dem te togg xare ba mu ñor day ginnaaw julli tibis mbaa julli géeye le bilaal di nodd julli yëpp dañu ci jàkk ji bu yëg min baram bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam ne ñaan kaas bàyyi ñaar ci gannaaw janoog mbooloo mi sant yàlla confirmé nu boobam gi ba mu sax mu ne nag soxla na yàlla diinam ji soxla na deret dereti gor yi ñoo war a suuxat garabug lislaam côté sàngam mbaa réew sàngam bëgg naa diina àgg fa téye na ko fa yóbbu ne diw nga ne ñokket ah, ana benn yedee ki yaa bi maa ngi mu joxe nga bi ne la jiital xeex bi soo daanoo jiital xeex bi soo daanoo ne la diw aw jiital xeex bi soo daanoo ne diw dal drapeau bi nga jël drapeau bi taxaw di lox mu ne gees gees xoolaat ne diw nga ne ñoo képp ñëw mu ne bu diw mooy daanoo jëlal drapeau bi nga taxaw ci wetam ngeen ànd liggéey meex mu woo kaneen kooku ñëw mu ne bu kii daanoo jëlal drapeau bi saaba yi xam nañu ne ku ne bi ne soo daanoo di nga daanoo su ne daa daanoo rek doo ñibbisi foog nga dee du la taxaw porte malade doo joxe ngànt da ngay dem sa kër menaat sa bopp dénkaane sa njaboot fay say bor fóon sa seet sa parental war sa naaru góor xam ne àllaaxira ngay dajawaat ak ñoom yow foo na bi nasri wa yaxaafoona yawman kaana sarruhu mustatira wa yutiimuuna tamalu miskina wa yatiiman wa asiira noonu la gars yi doon def mu aata nag ne bi nommé Jaafar nommé Seydina Seydina Harisa ah, ah, ah, nommé Abdallah ibn Rawaha ñetti généraux nommé ñu doo Seydul la nommé boo daanoo na la Abdoulaye Dore la relevé balaa doon a Jaafar Sabara kay jël drapeau bi ñu dox tuuti xeex ba metti lool ñu daaneel Seydul na xaarisa Abdoulaye Dore wax jël drapeau dox tuuti ñu dëmbeel ka mu daanu ndeysaan euh, Jaafar ne këfit drapeau ba ne sa fait ne maa ngi dundal baatu yàlla ci ndawal ci kaddu ndawam lu ñuy wax Muhammad sallallahu ñu ne loxo ndeyjoor ba tappit dagg drapeau ba ne jaayee mu jeey sa këf ak càmmoñ ba ne loxo bu dog du ma tàggaleeg lu ma ne bi dénk ne loxo càmmoñ ba ñu ne loxo ba tappit dagg mu ne ñaari loxo dog du ma tàggaleeg lu ma ne bi dénk keppa banta ba ŋànka morsa ba dese ay luppam mbagg yi mel ni rebi na mu ñu roof boppam ci biir noonu ñu doon dagg bopp ba drapeau ba raat boppam rek yàlla na jëf la yëpp ruur seen la gële liggéey liggéey bu seen la bële ñu foofu ruur jaxfar teg ci plateau urus takk ci kanamu yàlla soo ba nekk tabanuma seeta taamu loo bëgg ma nafal la mu ne dara delloo ma ci jëmm jële rek may yëngal di xeex ci lislaam ba ma am doole sama borom nekk fii kenn du ñëw dellu loo bëggar bu dara ruuga la ñu mujj fop dugal ko ci cadre malaayika na bi yaa na toog ba yàgg ak saaba yi nga gees teen ne wa aleyka salaam fee leen nuyoo jaxfar a ngi jaar fi ànd ak malaaka mission yàlla moo tax ñuy ko wax jaxfar taayir ñaari jaxfar am nag jaxfar taayir am na jaxfar saadix am na jaxfar saadix mamadul baaxi da ko jur seen la abidina jur ko asinu musalla jur ko asinu sibti jur ko aliyin jur ko fatimata bint rasul nga yeeg dem waaye jaxfar bii nag saan moom la moom bokk ak abdou manaaf mi jur aliyin ndey ak baay koku non la dem ndeysaan xare bobu gor gogu Abdou manaf mo jur wax jooju yega mo jur ali jambar ji ngay deg ci óot ak khaybar ak Uréen ak bani khurays tak bani Nadir mu dajeeg opportunité bi lu wëddi góor googu moo jur wax jooju xam nga mo jur o Uqayl wala Aqiil moo tawloo muslim moo jëkk daanu karbala umu xaani la caatloo néegam na demee faran fa la ko jibil fekk bu ji yàlla ku jur ñooñu yéefar la mu nga dee ca safara mu nga safara mën tax laa ilaaha illallaah kon kay laa tex di mën naa babta wala kenn ne sa ne bi jooy na ci def na ci intervention ñaan na ci yàlla ndeysaan ba xam nga fu mu mujjee moom téere yëpp d'accord nañu ne ne du passé moom safara suñu wax iqla iqla ndeysaan kaw a seen ngay tuuse mooy baxal si yoru bopp fa la góor gi ma moom ma ne ku yàlla xañ loola xañ ko bàyyi njool màkka mu dund ak moom jur ko dëkk ak moom benn ëtt benn ndën benn jamono nga sore ak nëbbi ci jamono bokk ak ndën yàlla xañ ka loola jox la ko dana ko dëndi xamoo liñ la defal kon gis nga koo teral te xamul nga ja nangul Seydi Hadji Malick bu ngeen ma dégloo nekk na ca du ratu aw faro fànci woo xam ne ci xammaamu nabi laa moo gën a leer gën a dëggum leen jëlemi ci téere ñu topp moo doon a di ka laaj laaj nañ ko lu jiitu juddu mu tontu ca ñu laaj ca juddu ba mu tontu ca kañ la juddu Maodo wax na ko heure bi Seydi Hadji Malick wax na ka reew li nabi wax Seydi Hadji Malick wax na ko ñi ka ma sa nampal te du jigéen ña ca am ca kër maw Maodo wax na ñu amul jëkkër te di jànq si daa ji maali wax na leen kenn ku ne doom ja yoroon ba ngay nampal ne bi si daa maali wax na xale yooyu ñu ci tuub Maodo wax na leen ñu tuubul it wax na leen ñu daan boot Maodo wax na leen ñu daan tett di dox ak ñoom si daa ji maali wax na leen wax na kañ la fer wax na kañ la dellu si waat ci ndeyam Aminatu Makkatal Mukarrama wax na ñaat yoon la tukki wax na yaayam kañ la dee wax na fa mu dee wax na la ka rey lan la si daa ji maali bàyyiwul yonent bi bàyyiwu ko bàyyiwu ko ba wax kañ lañ ko yónni fan lañ ko yónnee nan lañ ca yónnee kan lañ ca yónnee bàyyiwu ko nag bàyyiwu ko wax kañ la gàddaay wax kañ la léegi màkkatal bu karama wax kañ la àgg meetu mun a war ku mu dajal si daa jimaali wax na ko ku ko dab Maodo wax na ko ku mu dajal Maodo wax na ku mu rombit si daa jimaali wax na la ma yoon boo ko sóoboo da ngay dabe mbaa ñu dab la yoon boo ko sóobee samba samba mbala mbaa nga dajee mbaa ñu dab Siraaji Maalik ku ne bi dab Maodo wax na ko ku dab ne bi Siraaji Maalik wax na ko ku mu rombit wax na ko ku mu dajal wax na a war wax na ka teeroo wax na fañ ka dalal wax na ka moom terrain ba wax na la ko jëndee ak ñaata la ko jëndee ku ko jaayee fu mu jëlee xaalis ba na entrepreneur bi ñaati weer la ko tabax ak ñaati fan joxe caabi wax na soxna yi mu takk ko tout bu ca góor wax na bu ko ca góor jiitu Alaaji wax na bu xeexee wax na suñ ko gañee wax ya wax na gëléem ya wax na naaru góor ya wax na dàll ya yamu daloog yamu daloog si daal ji maali wax na wax na kañ la feebar wax na feebar bi kañ la ko attaqué wax na kañ la nelaw wax na heure ba wax na ña ko doggali wax na fañ ko sànge ña doon sàng ña doon sotti te wëlbati ñu wax na ña doon wëlbati sotti ñu si daal ji maali wax na wax ma wax na teen ba turu teen ba wax na alaan yi ñu ko ñaata alaan la wax na ña ko sàng téere bi jeex si daal ji maali tàllal yàlla loxo tey nag mu ngi déparé nun ci première soxna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen yéen a moom gàmmu bi yéen a ko war a moom nag waaw jigéen ñee war a moom gàmmu bi moom daal dafa mel ni euh, sëriñ bi dana ci wax sax xam naa bu ca karame buy waxtaan dafa mel ni daal yéen lu yóbbu àjjana waaw dafa mel daal jigéen ñee yóbbu góor ñi àjjana parce que li gis bu jógee fii waaw xanaa waaye ñi de dañuy fott góor ñi daal mën nañoo foto ah Sidaaji Malick nena nena soxna suñu wax Xadijatu bintu Xuwaylidu moom la yonente bi aawloo Xadijatu mbokkum yonente bi seen ñaari maama bokkan ndey ak baay ku leen jur xusey xusey ku ko jur kilaab ak kan faatumata bintu saadin kilaab li kasrati kaj bee tax ñu dëkk kilaab dafa bari woon xaj di rëbb di sàmm ñu ko borom xaj yi moo waral kilaab gi moo jël jigéen ñoo faatumata bintu asidin am ca doom bu ñu wax xusey booba mu ngi tuddee seydul bi mu juddoo seydul lañ ko tuddee tuddagul xusey góor googu teelee de muy kilaab ku ñu wax rabia homme d'affaires la jóge saam ñoo makkatal bu karama def affaire am dajeeg Faatumata bintu Saad mu rafet laal di jeeg bu ndaw mu laaj njaatige ndax kii am na borom kër mu ne dafa faatu bu yàggul mu ne man de bëgguma sëy àll waaye kii ne su ma bëggoon dinaa dinaa dinaa dinaa ko jël mu ne du war a jafe ngoon jot mu waxtaan ak bokk ya ñu d'accord ci fob Faatumata bintu Saadin may ko Rabia Rabia naa man kat dëkkuma fi damay yóbbaale sama soxna ñu foo xam yóbbaale mu départ yóbbaale nag doomam bii di wax Seydun muy xale bu ndaw mu ànd ak moom dem saam fa la yaroo nag fa la ba ràññee waaye gis ne baay bi cofeelam des na ci moom mu introsé yaay ji xanaa yaay kiiru sama papa pire mu nekk déedéet doom bëggu moon nga xam ko sax say bàyyi nga dëkk màkkatal mu karama ñoo dëkkoo bay taayil arab mu ne kon toxu naa tey ma jóge saam ndey ji na doom ëpp naa mu ne tey ma takk bagaasam génne saam dëgmal màkkatal mukarama ak ci fekk màkk lu fa xew ku mag moom ku mag moom góor gu ñu uley lin bokk ci bànni usaxata moo ca mag am benn doom bu jigéen moo ñu ubbee mooy borom dëkk bi yor kilifte fi kaaba gi am benn doom képp mooy taawam di caatam góor gii du sëy du nag ak si ndeysaan keroog bu mu taxoo saam ñëw màkkatal mukarama kër la dina xosey wa jaa min axasal madina rajul yasa xala ya xaw mi xosey mooy firi vingt ans yu kuy door agsi mooy firi xosey ba mu ñëwee nag jóge saam tudd Seydou ñëw Mbàkke lañ ko tuddee xosey ndeysaan mu am fay fan quelques mois ne dama bëgg a soxna di war ba gis umbee ne kii laa bëgg ñu ne kii doomi kilifa dëkk bi la baa doon lu ko takk mu ne moom laa bëgg ñu tox ngoro téere yi ne nañu fa ñu doon takkee iblis feeñ na fak ak saytaane nañu fa bu juróom-ñaar fukk de ci barab bañ doon tak fañ doon yéewi sëy ba xeex nañu fak iblis ak saytaane ak leeru Muhammad bu juróom-ñaar fukk de waaye yàlla terewul rek sëy ba mujj na am ndeysaan ñu fop ndeysaan xusey may ko ubbe mu am ca ñent doom yu góor abdou déeri la ci tawlo teg ci abdou manaf teg ci abdou kahba teg ci abdou xusa abdou manaf magana mo jur hasim mo jur saybata mo jur abdullah mo jur rasulaay abdou xusa magana mo jur asidin mo jur xawayridu mo jur khadijatu ñu delloo ko yàlla muhammad kon chamagnam la jëkkëram la koo koy aar yonent yàlla Muhammad jee si laaj mal bëgg a tàmbalee ngeen tey bay laaj Malick ne wa baada saar day ni fii salhaami silaami abdou isaaratu li taqrib la isaaratu li taqrib isaaratu junj bu jige junj bu jige mooy mooy isaaratu li taqrib xam nga junj dina jige dina sori xam nga ku lay wax nga ne que fële gis nga fële fole ca koñ ba bokkul ak koo ne fuur fuur bokkul ak fële fële mooy bu sori fuur mooy bu jege moo tax Seydi Hadji Malick ne si fii sëlhaa bi xam nga diggante fi Maodo wax ak fi muy adressé ñaari woye fi ba waa ma waa xam sin وإسرين خلو خولتين وما خمسين وإسرين رجوع إلى سامر وميسرات ديجا تم في مودو خنيار بيتي في نخ جنجة جونجي بيجي بلا جمال وام بعد السهر جنا دم في سر أمي تي اد مي مي ما جوخ جنا لغي نينا واس منا ثم خمسين وإسرين يتفتل نيار فكي فانا جروم نينا واس منا دون متعمي بنجول ماكا 25 كان ñu ne منا أك 25 كسور ñu ne منا si ما ne événement bi كلا خمي كان ما la yaa xam yoon wi doxalal yaa xam yoon wi. ba waliyu ku wattuwul di nga paas ba mu jeex te doo andi waliyu wala boo ku la neex nga andi ah waaw ma ne doo indi waliyu wala da nga seet ku la neex rek nga andi ne waajaa ngi ma waxaat li ma ne ku la jox ñaar fukki junni. ne la paas ci utal ma waliyu foo ko gisi andil ma ku wattuwul sa cent mille dina jeex te doo andi waliyu wala boo da nga seet rek ku la neex ci gaa yi jiital téye ci loxo bi ne waajaa ngi nii. ma bëgg laa wax nag kuy wëli ba lañ lay utloo ji wëli yu pour nga noppalu xam nga mooy kan wëli mooy góor gu dina ñaxam di jaamu yàlla te du fen góor gu dina ñaxam tey jaamu yàlla te du fen wëli yoo ngoo foo dajeek moom jiital la indi Abdou Manaaf pànjool Makka yoor yoor doom samp kër jot na ci yow jamono neexul sama loxo jotul sama gannaaw te maa la war a demal kon jógal jéem a yëngatu am dara am na ndaw si ne ci dëkk bi sa mbokk la xamante wu leen xadi jotu la tudd ma ne seen ñaari yoon seen ak atiix sëy ba baaxul am na ca doom mu tas seeg in sëy ba baaxul am na ca doom mu tas ne dootuma sëy gisatuma ci góor ñi ku ma jaral ubal bunte bi découragé ubbi commerce fond de commerce di def na mu daara ba mu daara ba lay defanteeg góor yi màkkatal jox la cinq cent mille nga dem Dubaay jaay marchandise ma dellu siwaat rendre ko compte ngeen génne bénéfice ba séddoo capital ba delluwaat mu joxaat la nga dellu trois quatre fois nga demal sa bopp kooku mooy mu daara ba dagan na loolu xarit ji doon liggéey góor gu Abdou Manaf bii nag jiital doom ju tedd ju sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom jëmee ko ca Xadijatu bint Xuwaylid yor yor la ñu agsi góor gi nuyoo ca ngi dëju te gàtt di ko dindil ay yu mat Abdou Manaf nuyoo xarit ju sigi xool ko xàmmee ko xamul Moustapha ne bi daawul génn lu bari ba mu ne xefeet xool ne bi yemoog ne bi di ko xool fa xasafa fii xolo bi ruux ba sama borom bëtt xolu Xadijatu sànni ca cofeel fii dafa ne tësit loolu lu mu tudd gis rek bëgg ah xam nga dina dal ku ne ci ku ne dina dal ku ne ci ku ne dina góor ci góor dina dal góor góor nga gis nit bëgg daa gis jigéen ju gis jigéen a bëgg daa gis it góor gu gis jigéen a bëgg day am ni muy amee gis nit bañ kati deful la dara am na ku bañ ku la deful dara tus am na ku bëgg ku la defalul tus xoolee liggéeyee noonu ma ne am na ku bañ ku la deful tus am na ku bëgg ku la defalul tus waaw xolay xol xol xol parce que xol commandé woo ko xoloo la commandé buy dem doo ko yëg xar jotu na xefeet yem ci sang bi xol ba ne tees loxo yi lox mu bàyyi la mu doon def àgg leen ci biir papa ñu àgg mu raxas jóg fekki leen fa xam nga ne muy mel jëkkër duñ ko dan dañ koy tànn jëkkër duñ ko taamu dañ koy tànn xamee nga taamu ak tànn taamu mooy ko amas lëf moo am kër geeg kër gële moo am magasin beeg bële moo gaare oto bii nga taamu ko dugg nattu la ca nga jeex nga am di am de <laughs> ah léegi bokkul ak tànn tànn jikko la ñuy tànn ak diina jikkoog diina la ñuy tànn ak juddu dañuy tànn juddoog jikkoog diina waaye taamu du affaire da ngay tànn xarijatu tànn na ñoo képp dugg a fekk leen jàmm si teg Abdou Manaaf kii sa càmmañ la seen ñaari maam bokk ndey ak sama frère ko jur yor dafa toll ci yëngatu ma gis ngay dimbali jàmbur yi te ku jub la sama la yoroo du la yàqal doo ma laa xam alal mukk ci moom ma bëggoon nga jox ko capital mu def nii nawlaam liggéey ndax mu am dara xam nga lu xarit ji tuddee première daf ne papa may ma ma ñëw ne ñoo jaar ci bunta wanag wa xam nga fu mu jëm kër war a xatu ni bi noo fël lu mu fay wuti day seetlu ji moo tax jigéen ñi kenn ma leen a tàggaleeg seet maa ngi leen bëgg a wax leen bu ko xeeb de amul kenn ci ñun ku sa jabar xamul ci kaw ba ci suuf xam na la ci biir xam la ci biti dem na ca kayit ya dem ca pettaaw ya ba ñu wax ka li nga denc ci xaalis ki ngay bëgg a takk xam na ko bu mu xeesee mu wax ko ku xees kii de boo wattuwul ku ñuul kii nangam nangam nangam ba sa jabar xam la te doo xam ci moom dara dara dara dara xadijatu na ñokkat sa war a xam ni mu ne gis nga yéene bu sell baax na yéene bu baax na lool xam nga war a xam yi dem na àjjana dem na àjjana war a xa dem na àjjana te julliwul woorul chrétien la woon lu ko fa yóbbu yéene bu mu am ci sallallahu alayhi wa sallam ca kanam dinaa ci dellu si daree papa dama bëggoon nga seetal ma ndax ñu yàlla yónni jeex na am des na yonente yàlla war yónni jeex na wala des na yéen ñi jàng téere yi war a xate ñoo ket bu bi boobu la tegam nar a seet benn bukkee tëral ci taabulam lañ bët lañ bët baaraamam xool liir ba mu yàgg na li téere yi bind day mooy des ne benn yonent bi gën ci yonent yi Muhammad la war a tudd moo papa judd na wala juddoogul mu ne ah non juddu na il est vingt cinq ans actuel pourtant màkk gii la dëkk de fi lay juddoo fi la dëkk waaye war naa am vingt cinq ans kenn du ko wax na ñëpp xam nañ ko téeréem xam nañ ko waaye kenn ko wax war na voyager dans quelques jours xarit doy na góor gi doy na ne ñokk ki dellu sot ci Abdou Manaf ne ko papa d'accord naa ci jox alal mu liggéey daanaa jox masalan daanaa jox góor gu ne cinq cent mille naa ko jox deux millions moom billaahi jar na ko bu amul ndant am na karawaan buy dem ginnaaw suba sàmm ne caar ne bi ne pare mu def la jëfi mag war a ah moom xaddi jotu o benn benn surga bu jox may surat Nak da ngay takk sa gëléem ànd ak karawaan bi dem sàmm suba yooyu bu marchandise nag yo. woo marchandise jëndi woo jaayoo mais gis nga waa ji fi génn am na lu ma ci moom te wóoru nga ak ci groupe bi fu mu ci wetam del waxinam definam jëfinam lu mu def ci yoon boo ñëwee rendre ma compte may soo takk ànd ak sanga bu tedd bi màkk am na rab ne ci àll bi wuy leen ak di leen gaaj di lay ba fu mu daan nabi def na ñëpp ca gannaaw ñëpp ca gannaaw avancé moom kenn ci kanam maa kaana tax taaju bu leen way tabayirul sajaatu ahlal madinata a li fa caay bi ñëpp rek kii la sallallahu alayhi wa sallam avancé barab ba génnee nabi def ko joxoñ mu dëj génn ba tourné bopp ba ne meel ci biir xeer yi atawi mina xaasa ba tey génnatul sallallahu alayhi wa sallam bu naaj bi tàngee désert la Makka beneen nii rek dagg ci asamaan tiim salaal alayhi wa sallam nekk Paris soolaam ñi ne gars yi ne ci naaj wi nabi ne ci kër gi bu ñu àggee fu ñu yendal jëkkante taatu garab ga sippi ku ne lal ca garab ga ne toog ca naaj dafa gore du xëccoo du buuxante ker gi ci boppam garab gi mooy tourné ker ga yëpp ko njool màkk fa mu toog ca naaj wa waa ji compté loolu ñu départ àgg ne bi keroog mu àggale marchandise yëpp ji xam nga ñu koy jënd malaaka yi ñëw di rek di jënd jaay ma ne bi jaay malaaka yi jënd mi naan jaay ma ñuy jaay bu ngoonee ñu dellu soit ñu jëndoon ne bi jaay bërëb bu set marchandise bu du jeex xaalis bi yokku yooyu la xarit joti regroupé nag def ko muy waru mu ne kii laa bëgg kat sang bu baax bii laa bëgg bàyyi ba bëggul ay càmmañam bëggul bàyyi laaji Malick ne wa ama ba wa wa baxda sahrayni fii salhaami fii salhaami summata xamsatin xamsatin wa isrona yawman doona mutaami wa isrina li tax li tax rafaa ji bàyyi laaji Malick def ci suuf ne wa isrina yawman jëlee moo tax doona mutaami maa ngi dem de moo si daaji Malick sayub Xadija toog sallallahu alayhi wa sallam Xadija toog bëgg rek say am wala njal màkk bëgg resey am wala ñaan nañu wala maye nañu wala warugar jib na ku wax alxayri ja délégation na bi ñaan si xam nga leen mu ne waaw délégation xadijatu bi maye xam nga leen mu ne waaw jur ga xam nga ko mu ne waaw ñu leen si daa ji maali bu mel ne balaa guddi ah! bismillah ñu door a continuer waat ci liggéey bi ñu Cerno seen dëkk nga ca wetu Wuro Sogi Cheikh Ahmed nee na papaam bi ko jur Thierno Ahmed Bayi Naaj di wali yàlla bu mag bi ñu xam ci biir Fuuta radiallahu taala anhu nee na bu muy tàggu Xaaji Malik Si radiallahu taala anhu nee na bis boobu mu ngi kiite Cees tànk la doxe boobu oto amul woon nee na boole ci dafa woor mu ñëw si Seydi Xaaji Malik Si radiallahu taala anhu mu ziyaare ko mu dem ba nga xam ne ne sëñ bi tàggu na ko ba dem na sëñ Xaaji Malik Si radiallahu taala anhu nee na na dellu si waat na ñëw mu ñëw mu ne ko Ahmad Ahmad nee na maa ngi lay jox kilifteef Fuuta yépp teg naa ko sa loxo dénk naa la ko waaw nee na dénk naa la Fuuta yëpp xaaji Malick si moo ko wax Thierno Ahmed Bay naaj nee na loolu la mujjee dégg ci xaaji Malick si radiallahu taala anhu nee na yàggu rek sëñ xaaji Malick si way ji boroom nee na xaaji Malick si nee na billaahi nee na wallaahi nee na tallaahi nee na turam bi nee na ismullahi azam la نانا لوتاح مو لولو نانا حاجم عليك سي رضي الله تعالى عنه كيف كوين يانا تبي صلى الله عليه وسلم كن سيدان واخ كوسي ميسي غنون ري ابن الفارد ابن الفارد لين سيدان واخ محمد البصيري محمد الاك محمد البصيري ولا من هين فوكو يمي كو نينا كوسي نك نك ليغا واي في يانتبي ليغا تاغ سي يانتبي دا فا ام فمو يم ليميت با دس سي حاج مالك رضي الله تعالى عنه نانا كوكو رك ما واي بي يانت بي بيغا خامني يانت بي فاجنغول با يانت بي فاجن دغول مو فوف تي اي تي جار جارام ييب ها واتيندي باغا خامني موي موي جيخيتالام في يوم الاثنين في بيت عائشه في يوم الاثنين في بيت عائشه دغول واتيندي nee na qabla zawal bi nga xam ne yonent baa ngi génn àdduna nee na mujj génnam ci àdduna nee na mu dem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ba ñu rot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu denc ko e ak ñu ko sang ñaata lañu e, e, nee na ak ñi nga xam ne moom la ko muuree ba ba nga xam ne duggal nañu ko si suuf ba ba أهدي معنا آه، سيدنا بلال نينا بدا سيدنا بلال يفتن ديام ديويس نخمة ديل نخمة ديجوي معنا منين أدو ديكو ويس تيكو قبر يننتبي صلى الله عليه وسلم تيكو ديجوي نينا راندفو منتو على إلي نينا سنو راندفو موي على إلي نيال لنكو يال دفل نين يبسي برق سريني توك سيدنا حاجي مالك كيسة دين بيرني نينا حاجي مالك سي رضي الله تعالى عنه بتم جي demon na ba nga xamne gisatul kon nee na waaye du du du silmaxa de